Euh, waaw euh, damay commencer fi nga xam ne fa nga commencer rek mooy euh, saccage yi nga xam ne mu amoon université le premier juin passé mu nekk loo xam ne instant bi ñun en tant que étudiant en tant que de représentants d'étudiants ñun dañ koy ñawlu mu fu mu ndeyam parce que loolu nekkul loo xam ne dañ koy xaar ci université aussi loolu noonu bi mu amee ñu lakk ay bus yu bëri lakk aussi fi nga xam ne fa nañ jànge sa à dire en euh, fi euh, chapiteau fac de droit dañ koo lakk et aussi euh, mu am ay salles yoo xam ne dañ leen dañ leen lakk et archives yoo xam ne aussi dañ leen taalaale mu nekk loo xam ne moo ñu andi presque benn benn benn rupture pédagogique boo xam ne ñu ngi ci woon ba presque sax am na ay facultés yoo xam ne li leen desewoon mooy examen. Mhm. léegi bu ñu demee boo ci loolu am ñu évacuer étudiants yi pour étudiants yi ñibbi parce que. je pense que c'était le jeudi le euh, le vendredi à huit heures on avait sorti un communiqué pour au moins étudiants yi mun a libérer campus social parce que boobu noonu étudiants nekkutoon en sécurité université amuloon sécurité il fallait que nga génne pour au ñu mun a dem ñibbi pour au moins sécurité bu la ñëwaat. Mhm. léegi aussi euh, ci loolu noonu la conseil académique bi réussir euh, conseil académique bi réussir pour au tey. Euh, ñu jël décision que ñun dañuy def cours en ligne c'est-à-dire université Cheikh Anta Diop day def cours en ligne loolu euh, bu ñu jël de cette décision là ñun on n'était pas au courant ñun ñi nga xam ne ñoo jiite amicale yi nga xam ne ñoo nekk université. yoo xam ne euh, on a élu légalement on n'était pas au courant. da ngeen doon xaar ñu informer leen par rapport à la décision. non du ñu xaar ñu informer ñu mais fi nga xam ne instant yii foo leen jëlee décision bi dañu war toog. te ñun tooguñ fa parce que boo xoolee université trois couches moo compose université bi mooy les étudiants les parts et les per léegi nag bi nga xam ne instant bi ñoom les parts et les pairs fu ñu toog pour jël décision ñun étudiants yi teewuñ fa te duñ fa war a teew. mais boobu yéen étudiants yi yéen ngi xeex. non boobu xeex bi passé na yéen a ngi yàq. non xam xam nga xam nga étudiants yi xam nga tuy tey euh, euh, loolu avant conseil bi di réunir boobu presque saccage bi passé na presque bu am ay une semaine et léegi nag conseil bi door a réunir pour au moins mu évaluer la situation pédagogique pour sauver année bi léegi nag instant bi bu ñu defee loolu conseil bi réunir pour jël décision bi nga xam ne instant bi dañoo war a def cours en ligne mais fu ñu jël décision bi euh, étudiants yi nga xam ne moom lañ jël décision te ñu am ay représentants yoo xam ne dañ leen wóolu teg leen fa ñoom ils n'étaient pas au courant ñun toogu ñun tooguñ fa woon léegi nag loolu ñu ne instant bi loolu duñ fa ñun duñ ko def parce que ku xool la situation du pays ak instant bi réseau bi nga xam ne instant bi nii nii moo posé dans les villages les plus reculés du Sénégal villages yi nga xam ne amuñ amuñ amuñ réseau villages yi nga xam ne aussi amul courant amul existé pour nga pour pour au moins nga sasa portable il faut nga nga daw lu mat ay 6 kilomètres. 7 kilomètres pour mën a sasa portable boo xam ne instant économique mun mun mun na ñàkk normal ñu ne lii permettre ñu. ñu def cours en ligne parce que boo ko defee dina am ñoo xam ne dañu gis seen bopp mais dina am ñoo xam ne dañu gis seen bopp te boo xoolee ci résultats yi nga xam ne instant bi ñoo nekk euh, euh, au niveau des au niveau des facultés étudiants yi nga xam ne ñooy fournir les ces résultats là il donc boo ko defee sax étudiants yi duñu xam sax li nga xam ne mooy xew parce que internet bi dafa difficile foofu voilà donc instant bi loolu yaakaar naa képp koo xam ne instant bi dangaa toog jël cette di jël cette décision là comme étudiant yi dafa war def cours en ligne Sénégal mu toll dans ce cas instant bi ni de yaakaar naa li nga xam ne instant euh, moom nga bëgg moom moom moom nga bëgg xamuñu ko